يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون La Maison du Coran au Sénégal Coran, sunu yitte moo leen di ñaanal jàmm أياما معدودات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 asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ginnaaw bi sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi am mbégte ak kontante ci ñëw ak yéen ci waxtaan yu am solo ci biir weeru koor gi weeru koor gi nga xamante ne nii weeru alquraanul karim la weeru barke la weer la woo xamante ni nii benn guddi mu ngi ci moo gën junni weer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni guddi googu ku mu rëcc yow na nga xam ni lépp rëcc nañ la kon loolu dafay wane ni guddi googu guddi gu màgg la waaye weer wi nga xamante ne nii moom la nekk it muy weeru koor weer la woo xamante ni nii weer wu màgg la mbokk yi weer la woo xamante ne nii yàlla subhanahu wa taala ci la wàcce alquranul karim muy téere yàlla bii nga xamante ni tey moom lañ téye bëgg ci ànd ak yéen bu neexee yàlla subhanahu wa taala waaye dañoo bëgg jël aaya yi def ci ay géndeeku ay taxawaay yoo xamante ne nii ay seetlu yuñ ci am la yoo xamante ne nii bëgg nañ ko ànd ak yéen pour ngeen gën a xam ni daal téere bi téere kéemaan la téere la boo xamante ne nii ci yàlla subhanahu wa taala la bàyyi ko su ko defee ñu la ci ànd ak yéen ci weer wi lu ci jub ñu sant ko yàlla lu ci dëng ñu xam ne ci jàmm bu di la jóge jàmm boo ni nii xam-xamam dafa am fu mu yem di wax ci téere boo xamante ni nii nag ka nga xamante ni nii moo ñu ko jox kooka xam-xamam amul fu mu commencé amul fu mu yem su ko defee ñun dañ ciy góorgóorlu lu ci nab na bi rek lu ci jub ñu sant ko yàlla luñ ci juum ñu ñaanaat yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu mbokk yi euh, fi ñuy départ ak yéen incha allah moom mooy ci commencement suuratu baqara lan moo tax ma tànn commencement suuratu baqara parce que ci suuratu baqara ci la yàlla subhanahu wa taala farataale koor te dama wax ne dañoo bëgg def ay géndeeku ay seetlu yoo xamante ni nii yu ñu buur bi subhaanahu wa taala baaxe pour bu ko defé ñu am ci ak jàngat xamni téré bi ci yàlla la juggé dama ubi saar yu ma xol ci commencement bi gis ni yàlla mu ko commencé alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه yàlla nee na téere bi muy alquraanu karim li ci nekk lépp a wóor li ci nekk lépp leer amul benn sikki sàkka bu ci nekk ci ni yàlla la jóge wala jógewul ci moom walla liñ la ci waxit muy ay ndigal nga war koo def yàlla la ko digal yi ñu la ci tere nga war koo bàyyi tamit kazalika yàlla subhanahu wa taala moo la ko digal pour nga bàyyi ko kon koor gi ñuy waaj a woor laa rayba fiihi ni ci yàlla subhanahu wa taala la bàyyi ko parce que ci biir aaya ba incha allah rabbi dinañ ci ñëw ci biir aaya ba yàlla wax ne yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum alsiyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaquun ci commencement saar wi yàlla ni dalika alkitaabu laa rayba fii pour nga xam ni farataal koor gee muy waaj a farataal tamit ci moom la bàyyi ko du lu yonent bi créé de muy benn ba pare bu ngeen xoolee yàlla moo ngi ko jeexale hudan lil muttaqiin allahu akbar yàlla subhanahu wa taala nee na alquranul karim dama ko def mu nekk hudan luy jubalaate ak njub goo xamante ne nii pour ñan la gaa yi ragal yàlla hudan lil muttaqin nga dem ci ayatu sawm laallakum tattaquun allahu akbar gis nga gis nga gis nga gis nga sew-sew bi nekk ci commencement surtout baqara ak benn aaya bi nga xamante ni nii moom moo nekk ci biir saar wa nga xamante ne ni yàlla ca rafaratal koor yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu e yéen gaa yi gëm kutiba alaykum siyam ñoo farataal ci yéen koor kama kutiba ala alladina min qablikum comme niñ ko farataale woon ci gaa yi leen jiitu laallakum tattaquun ci commencement saar bi mu daan ni hudan lil muttaqin même baat bi moom moo ñëw baatu taqwa allahu akbar kon ndekete ban jàngat lañ ci am mooy ndekete soo wooree da ngay jëlale alquran gi mu nek sa loloy waral ba bu koor gi jeexee nga daa am taqwa waw nga woor fexe xam lan la yalla wax ci téere bi li ci ndigal nga def ci lo man li la tere nga daal di jéem a bàyyi la yalla subhanahu wa taala junju ci commencement saar wi motax fele fële mu ne laallakum ci commencement wi ginnaw alif lam mim ñaarelu ay bi direct mu dal ni hudal lil muttaqin mbokk yi ñetteelu seetlu bi nga xamante ne nii def nañ ko ci saar wi ci commencement bi ak ci aaya bi nga xamante ne nii mooy yaa ayyuhal ladina amanu kutiba aleykum siyam yàlla nee na alladina yuminuuna bil xayb allah alladina yuminuuna bil xayb yàlla nee na mu ngi ko defaral ñen gaa yi nga xamante ne nii ci kumpa lañ gëmee yàlla dañ leen wax ni yàlla am na ñu daal di koy gëm dañ leen a wax ajjana am na ñu gëm ko dañ leen a wax safara am na ñu gëm ko waaye tamit kazalika alladina yuminuuna bil gayb gaa yi nga xamante ne nii bu ñu wéetee ñoom kese nekk kenn gisu leen ma sàmba gisu leen ma dem ba gisu leen ñoom ak yàlla rek a nekk lu ñu naroon a def bu ñu xalaatee ni am na buur bu leen tiim di leen gis di leen dégg ñu daal di koy bàyyi alladina yuminuuna bil gayb waa léegi taxawaay bi ma ci amaat mooy lan diggante bii nii alladina yuminuuna bil xayb bi ban alaaqa ban euh, relation la am ak aaya bële yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam mooy bu la neexee nga woor tëju ci biirum néeg lekk ba suur génn comme ni ko yenn njóobeen yi di defe ah génn ci mbedd mi kenn du yëg lu xew ah, ah. waaye bu fekkee yow gëm nga ni yàlla subhanahu wa taala mu ngi lay gis mu ngi lay dégg foo mënti nekk su ko defee boo wéetoon ci ak kër yow kase képp rekk dong kenn gisu la du te doo lekk doo naan parce que yàlla subhanahu wa taala nga gëm te gëm nga ni moom mu ngi lay gis gis nga alladina yuminuuna bil xayb kon gis nga alquran téere bu yéeme la mbokk yi xoolal commencement saar wi ni mu amee ni mu amee rabt ni mu amee alaqa ak li nga xamante ni moom mooy ayatu sawm muy aaya bi nga xamante ne nii ci la yàlla subhanahu wa taala farataale li nga xamanteni ni mom modi kor wa yuqimuna as-salat wa yuqimuna as-salat yalla subhanahu wa taala neena na bokku na ci gaay yi gem gaay yi nga xamanteni ne ni am nañ taqwa wa as-salat ñuy taxawal julli allah kor gi ñewat naafile yi démarré xam nga julli farata yi mom xam nañ ko farata la mais xoolal yàlla tudd na fi julli ci commencement saar wi nga gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu koor gi daan ñëw daan yokk ay julleem di naafile nga gis ni kon naafile yi donte ko du farata waaye boo xoolee ak junju wala ak talmiix wala ak ima xaw a junju tuuti am na ci ci commencement saar wi nga gis moo tax koor gi bu ñëwee ndeysaan jàkka yi yépp ubbi nga gis ñu commencé naafile yi macha allahu la quwata illa billah loolu li muy wundu li nga xamante ni nii moom lay firi moom moo di ni yàlla subhanahu wa taala ca ayatu sawm mooy yaa ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam bokk na ci yi nga xamante ne nii bëgg na ko ci koor gi lu ñu doon julli ñu daal di koy yokk bu fekkee doon nañ naafile fukk ñu def ko ñaar fukk bu fekkee ñaar fukk la ñu def ko weer noo naka noonu naka noonu kon mbokk yi wa yuqimuuna as-salaa ah wa mimma razaqnaahum yunfiquun saraxé ñew xolo koor gi bu ñewé yaay Aïcha néna na yonent bi salaa salaam li mu daan tabe tabe tabe tabe ba ñepp sédal ko ak tabé bu koor gi daan ñew day yok yonent bi dafa musa tabe mais bu koor gi daan ñew ci lay gëna yok yokku mbokk yi xolal koor ci lañ la digal ngay saraxé ci lañ la gëna a digal ngay saraxé yaa ngi gis comme que yalla mu ngi bëgg faratal koor ci bir sarwa ci commencement wi subhanahu wa taala daan ñu jox mandarga yi nga xamanteni ni bu ñu bëggee am koor gu baax bu ñu bëggee am ak taqwa bu koor gi jeexee laallakum tattaquun buñ ca bëggee egg il faut ñu sukk ci yi nga xamanteni ni nii moom la wax bi ci njëkk jaar naa ci moom moo ni dalika alkitaabu il faut ñu takkoo ak alquranul karim wa yuqimuna salaa il faut ñu sax ci naafile yi di naafile normal di julli guddi insha allahu tabaraka wa taala bokk na ci yi nga xamanteni ni nii moo ñuy may taqwa waaye tamit kazalika di saraxe bokku na ci yi nga xamante ne nii moo ñuy jàppale ba nga xamante ne nii dinañ am ca taqwa ga nga xamante ne nii moom la yàlla subhanahu wa taala tëjee saar wala moom la tëjee li nga xamante ni moom moo di aaya ba mooy laallakum tattaquun mbokk yi beneen seetlu bi nga xamante ne nii bokk na ci li ma gën a ci commencement suratul baqara mooy yàlla li mu ni walladina yuminuuna bi ma unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil axirati hum yuqinuun allahu akbar ñaari taxawaay ñu ngi foofu bi ci njëkk moom mooy walladina yuminuuna bi ma unzila ilayk yàlla nee na bokk na ci wàndarga yi nga xamante ni nii ku nekk ci yow ku ragal yàlla nga mooy nga gëm ni lii ñu jox yonente tibi sallallahu alayhi wa sallam dëgg la ci yàlla la bàyyi ko ñu daal koy gëm waaye duñ ca yem wa ma unzila min qablik ak téere yi ñu woon jiitu muhammad jiitu alquranul karim allahu akbar ban seetlu foofu xoolal ci commencement saar wi yàlla utilisé na baatu qabl baatu qabl wa ma unzila min qablik allahu akbar nga demaat ca ayatu sawm yàlla wax falan ya ayyuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum gis nga baatu qabl ñëw na ci commencement saar wi ñëwaat na ci aayatu sawm allahu ba baatu qabl wallahi alazim alquran lépp kéemaan la alquran lépp ay mucjisa la boo amee ak seetlu di ko jàngat di topp aaya yi di ko càmbar da nga ci gis ay kéemaan looloo waral ngeen gisoon cheikh Mutawalla Sha'rawi nekkoon ponkal ci loolu Mutawalli Sha'rawi afwan bërki démb rek génn góor daf may nettali dafa mos a dégg benn paa naan mu ta wallaa looloo nekk ci sama xel ba gis nga man mu ta walla chaara bi mais mu ta walli la tudd mu ta walli a chaara yi jamil mu ta walli chaara yi ndeysaan xoolal yooyu la daan def moo waral ngeen gis ko mu am tafsir quraanam géndeeku yi nga xamante ne nii moom la daan def ci téere bi wa ma unzila min qablik xoolal yàlla li mu tëjee aaya bi wa bil axirati hum yuqinuun bokku na ci mandarga yi nga xamanteni ni ku mu nek ci ku gëm yalla nga nga gëm gëm gu gëm gu leer ni yawmal qiyam deug la ban ala qala am akor yalla subhanahu wa ta'ala ah, mo wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jangal ñu dan ni de koor man yalla ma koy fayal sama bop koor yi dan wor bayyi len ba yawmal qiyam bu ngeen ñewé ma fay leen préparer na leen fa buntu bu tuddu ar-rayyan yeen ñi wor fa ngeen di duggé allah kon gis nga waji wor wet manona lek lekul manona nan nanut koku gem gum gem ni yalla dina ko fay ta fayor gogu fan la yawmal qiyam Masha allah motax yalla yàlla ci commencement saar wi mu dal ni wabil akhirati axirati hum yuqinuun su ko defee nga wor wor gu wor wor gu leer bu ko defee bu yawmal qiyaamee yàlla subhanahu wa taala dal di lay fay kon mbokki ci teunk da nga wor commencé nga wor yàlla nee na bu ngeen wooree ba koor gi jeex di ngeen am ragal yàlla waa ragal yàlla googu lan moo la koy may ci biir koor gi est ce que ñàkk a lekk ak ñàkk naan la su dee loolu xar yi ak bëy man nañ ko ñàkk lekk ñàkk naan ma ne xar yi ak bëy yi nañu ko fan ngay rawee mala yi nag mooy ci yii jàng alquranul karim dalika alkitaabu laa rayba fiihi ñu waxaat ak ban moom mooy al imaanu bil gayb nga gëm yàlla ci ak kumpa gëm ko foofu nekk nga xam ni yàlla subhanahu wa taala mu ngi lay gis ñaataangoog ñaar wa yuqimuna nga fexe ba koor gi nga commencé di julli ci waxtu wa kazalika di naafile normal bu koor gi jeexee wallahi di nga am taqwa waaye tamit kazalika li la yàlla jox lu mu néew néew nga ciy comp di ci saraxe loolu bokk na ci li lay may taqwa waaye tamit kazalika nga gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dëggal ko gëm yonente yi nga xamante ne nii ñoom ñoo jiitu woon waaye tamit kazalika nga boole yooyu yëpp daal di koy fas nag ci sa xol muy juróom-benn yàlla subhanahu wa taala nee na ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun ñii daal ñu ngi ci aw yoon ñii ñooy ñi texe kon mbokk yi képp ku bëgg a am taqwallahi subhanahu wa taala jàngal commencement baqara ba aaye 5 foofu di nga fa amee taqwa mu yóbbu la ci koor yàlla ñu yàlla subhanahu wa taala defal dégg ak topp lépp lu fi jub nañ ko sant yàlla subhanahu wa taala lu fi dëng ñu jéggal ñu ko wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. قرقم نولان في القرآن دفل القلاك دف قنان من عبوات آثمان دف المور مئنكو نلن جرال صن بوير يا أي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون La Maison du Coran au Sénégal, Coran, Sunuyité, Molendignanal, Korogiam. أياما معدودات